solution ba ak seen xel yëpp dal na miel jàmbaar moo dalal xel yi mbokk mi da yàgg di wër garabu kàttan kattan ah mani lépp leer na yaakaar ak si na ak waa nii muminina garabu gàncax ñi nga xamante ni produit bio naturel 100 pour cent mooy moom yëf nii na moo leen indil miel jàmbaar miel jàmbaar mbokk mi mani li ko tax a jóg du leen lu dul wàllub kattan néew kattan boo ko amee jàppal ni sa garab moo ngi nii buy dem faneen ak si nga jàmbaar di garab gu baax loolu te efficace si wàllub kattan ak lépp lu gàllankoor si wàllub kattan moo xam dañ la takk xala wala rab jàpp la wala nga am tawat yaram dafay traité mbooleem tawat yi dal góor si wàllub sëy dafay dimbali jigéen bu baax a baax si wàllub plaisir mbokk yi loolee mooy miel jàmbaar ñu liggéey ko si lem petit cola jingeer huile d'olive huile xorompolé ginseng cannelle moo ñaale ko nag ak lenn si ay aya alquranul karim mbokk dama ni lii dara gënu ko wóor 100 pour naturel amul benn effet secondaire ndax nag dañ ko liggéey si anam yu jaar yoon produit la bu ñëpp nag mën a jëfandikoo mag ak gone góor ak jigéen disponible nañu saa su nekk ñoo ngi Touba ak Dakar Dakar woote leen gaaw si 78 445 04 79 78 445 04 79 miel jàmbaar daal mooy waaja ndax nag ñi ko ñamoon ñëpp xam nañu ni du moroom si wàllu sëy ci noonu nag la SK daal di waxtaan ak xale bu jigéen boobu nga xam ne moom la gisantel ci hôtel boobu nekk Cap-Vert ci ndaje moomu amoon muy ndaje mi nga xam ne dañoo tànnoon ay musicien africaine maanaam yenn woykat yoo xam ne Afrique la ñu nekk te moom mu nekkoon ñaar nit bu fa teewaloon Sénégal bi nga xamee ne la ko fa yóbbu woon mat na ba mu gisante ak ndaw soosu nga xam ne daanaka jëmmi ndaw soosu mu daan wër te mënu ko woon gis ba finalement bi mu koy découvrir bi mu koy mujjee xamaat ci moom dara mooy bi mu génnee bi mu tëddee gént ki nga xam ne mooy Kumba Jinne xamal ko ne ndaw soosu du nit jinne la waaye nag nit ku mel ni moom am na mais ndaw soosu jinne la bu nekk Cap Vert mooy Linda Linda moom nga xam ne moom la Ska bëgg ci xolam bi mu gisee ndaw soosu nga xam ne jëmmi lindaa la yor mu intéressé wu ci moom ba ndaw si xamal ko ne ko moom jigéen la boo xam ne dafay jaay boppam ci noonu itam moo wax ko moom ban anam la koy defee maanaam ay catégorie la dafa am ñoo xam ne xëy na ñoom dañuy taxaw ci mbedd yi ak di def yeneen ak yeneen xëy na duñ ci bëgg di xóotu mais histoire bi li ko femme bi wax mooy daf ko wax ne ko moom dafay jaay boppam mais ci ay kilifa lay dem maanaam ay boroomi doole artistes politiciens ak ñu siiw célébrités yi ci ñoom la la koy seqal mu nekk nag mbir mu doy waar nga xamee ne Esca nag ndaw si nee na ko su fekkee intéressé wu ma la bàyyi ma ma dem dox si yitte su fekkee intéressé naa la nag ñu wax li ñuy wax fii mu jeex parce que aw ma temps dama am client bu ma war a dem gis àndal pour am fu ñu war a dem escané ko intéressé nga ma te damay jël sa numéro fas naa yéene xamante ak yow ndaw si ne ko kon baax na ne ko man nag ma gisee ku mel ni yow koo xam ne ku siiw la artiste la te itam am na lu ko yàlla dénk ci wërsëg maanaam daal nekk na koo xam ne daal célébrité la damay préféré ànd ak moom moo may gënal di ànd ak ñeneen mu ne ko kéema àndal de baayam borom alal la yàgg naa nekk ak moom daf ma soxla woon ci xew-xew bi amoon fii ci la woon waaye dinaa ko wax ne ko mun mënutuñu woon continuer dañuy arrêté ma ak yow diiru sàngam parce que am naa koo xam ne moom laa bëgg a continuer xëy na loolu du ko neex mais dina ko wax loolu dinaa ko envoyé message wax ko loolu comme ça ma des ak yow Eska amoon mbégte lool nag ci li ko ndaw si wax ndaw si intéressé wu ci Eska lool nag commencé soppi xar kanamam mel ni koo xam ne Eska dafa nekk ku mu yàgg nekkal. est-ce que comportement boobu jaaxal na ko ci ndaw si mu ne ko waaw yow sa changement bu gaaw bi ana moo ko waral ak léegi ni nga commencé di fecc sa xar kanam bi di wax ak man di ree di ma attirer sa bopp pour wan ma ne ma mel ni man ak yow dañoo yàgg génn noonu ndaw si tontu ko ne ko déedéet loolu dafa bokk ci professionnalisme li ñuy liggéey maanaam ci professionnalisme li ñuy liggéey la bokk maanaam li may liggéey ci li may yëngu su ma demee ba gis kilifa goo xam ne ku mel ni yow. ma war a jëflanteeg moom lépp loo xam ne nit mu nekk ak soxnaam soxnaam dina ko jox ci mbëggeel ak ci jàmm ak ci bànneex ñun dañ la koy jox te loolu tàggat la boo xam ne fi may yëngoo maam ci li may liggéey dañ ma ciy tàggat est ne ko kon lii am na ay tàggat ak yooyu mu ne ko am na ci bien sûr ay këyit ak yëpp lañ yor est-ce que daal di yëngu ci yàlla ci àdduna ku yàgg dox di gis lu nekk lu nekk di ko gis. ci noonu nag la ndaw si daal di waxtaan ak est ko nag. danaa la expliquer naka la liggéey bi di doxee comme yow célébrité nga artiste nga boo xam da ngay wëy di tourner ay clip bëgg li nga xam ne itam mooy buzz nit ñi di la xam di gis lu neex ak lu rafet ci yow comme loolu nga bëgg te man gis nga nii ma mel ak ni ma taaroo jekk na loolu clip yi nga xam ne danga koy tourner yenn clip yi ma ciy feeñ wala ma ciy génn wala ngay ànd ak man loolu ci prix bi lay bokkaale li nga xam ne moom nga may fay boo nekkee ak man mooy di créer ay polémique nit ñi di wax ne man ak yow dañuy génn maanaam dañuy ànd di ngoro ngoroyoo donte na sax ngoro ngoroyoo doxul suñu diggante business moo dox suñu diggante waaye nag yooyu yëpp lu ci nekk rek prix lay laaj est-ce que daal di ree ne ko yooyu yëpp amul problème man prix boo xam ne lépp loo xam ne faveur la nga man man ko defal artiste man pere naa pour dund ko ak yow te nag li ma gën a bëgg dëgg dëgg dëgg mooy sax nga nekk sama soxna ndaw si daal di rey ne ko boo bëggee nag suñu relation yàqu suñu ànd bi yàqu waxi soxna da koy tegee nële ndax ñun loolu loolu bokkut suñu métier noonu est-ce que laaj nga ne ko waaw lan moo tax bokku ci femme bi daal ne ko soo am na détails yoo xam ne ak gaam yoo xam ne buñ ci dugg parce que bokkut ci ci liggéey bi noonu est ne ko kon baax na amul problème léegi yow noo ko bëggee ndaw si ne ko prix sàngam ak sàngam ak sàngam ak sàngam nga may fay nii ak nii lay demee su dee da nga bëgg ñu nekk un mois lii ak lii lay doon su dee nangam nangam wax ko daal ni liggéey bi di fonctionner ak ay prix yu cher est-ce que pare woon na pour bépp prix bu ko femme bi wax mu fay ko ndax bëgg gum ko bëgg ak bëggum bëgg des nekk ak moom waaye nag mu xamal femme bi ne ko li nga bëgg nag xam naa ne yow disponible nga ba tey tey su la neexoon man ak yow ñu ànd dem fu ñu neex ci àdduna bi waaye nag loolu mënul nekk ndax benn dama yor jabar ñaar Sénégal gi ma dëkk day dëkk boo xam ne bokkul ak fii am na wuute ak fii Sénégal dëkk la boo xam ne maanaam nit ñu yàq sa dara wala ñu waxal la dara dafa yomb bi ñu topp itam am naa euh, maanaam sama religieux bi ma bokk dafa am ay ay mbir yoo xam ne moo moo ñu tënk ba duñ mën a am rapport ak kenn ku dul ku euh, sunu jabar wala bu dee jàmbur la itam am ñàkkul ay sarax wala mbir yu ñuy def daal nax ndaw si daal xaw ko gëlëmal ci wàllu religieux ndaw si laaj ko yow ban religion ban religion nga nekk mu ne ko man musulman la noonu femme bi ree ne ko est xam nga ñun dañuy jàng man dèjà lépp loo xam ne nekk na ci religion musulman lu ci bari xam naa ko parce que yàgg naa am ay clients musulman ba ci ay kilifa man nag malgré chrétien laa waaye sa reli sa religieux ak sama religieux daanaka ñoo bokk lu ñuy bañ rek fi mu toll nii li nga wax nii su fekkee da topp sa diina gëm sa diina danga ma fi bàyyi nga dem nekk ak sa jabar da nga bañ a dugg ci man waaye est-ce que waxul loolu ndaw si li mu bëgg wax ndaw si dëgg-dëgg du est-ce que pare na pour seq ak ndaw si dund ak moom ay caaxaan topp ba kanam waaye li tax ñemewu ko du diina de du religieux. kumba jinne moo tax esca ce que ñemewu la seq ak ndaw si dara ndax moom kumba jinne rek lay topp ay règlement am lay déglu ci loolu la est-ce di sëgg xalaat ne waaw kumba jinne lim ma tere woon de du woon bu ma njaaloo dana ma fekk amoo dele sàngam bul seq benn jigéen tant que amul soxna waaye léegi est-ce que su ma amee soxna. du ma dem du ma jéem a dem maanaam euh, nekk ci lu ma neex nag est ce que nekkul ne léegi libre naa waaye est ce que bu ma njaaloo ku ma jëlee dina ma indi problème wala du ma indi problème di wax loolu ci xelam moom seetatul yàlla sunu borom mi ko bind de te moo ne ab jullit la de te xam na lu dinaa wax ci njaala rawatina nag nga am soxna ba ba noppi di njaalo waaye moom kumba jinne mi nga xam ne jàpp na ne li am ci alal lépp moo ko jox kumba jinne mi nga xam ne jàpp na ne lim lim lim doon reefe ci àddunaam ci moom la ko yàlla jaarale kumba jinne moomu lay déglu ba xam li mu bëgg a def dana ci ànd ak moom wala du ci ànd ak moom léegi nag est-ce que benn problème la am mooy xel mi li ëpp ci xel mi jàpp na ne kumba jinne libéré na ko ci côté boobu parce que xas am na soxna muñ na li mu war a muñ ba am soxna kon tey léegi libre na ko def ko neex waaye ndax loolu lu wóor la am na confirmation wala amul confirmation léegi nag problème bi mu am mooy kan la ko war a laaj pour mu leeral ko ko kumba jinne jéggal na la maanaam bàyyi na la pour nga mën a seq ku la neex donte ne njaalo lay doon léegi nag ku mu koy laaj la xamul xamul itam nan lay def ba gisante ku ma jënne xamul fan la ko war a fekk loolu nekk problème bu réy te xel me xol bi yëpp dafa fees dell ci li nga xam ne mooy seq ak ndaw soosu ak dund ak ndaw soosu ndax bëggul ndaw si rëcc ko ndax bëgg gi mu bëggoon Linda te gisaat jëmmi ndaw si muy Linda donte ndaw si nekkul lindaa ndaw si Oris Silva waaye lu tax femme bi topp ko rek mu gisoon ko bu njëkk bëgg ko doon nekk ak moom ba kumba jinne xamal ko li mu ko ci xamal mu xam ne jinne la lu tax mu ñëwaat ba mu yàgg gisaat ko mu nekkaat nit nekk origine pour pourquoi mu nekk même femme bi ndax femme bi kumba jinne yebalu ko loolu yépp mu ngi koy xalaat est-ce que du piège kumba jinne la waaye mu ne ah léegi daal li may def mooy naa jël contact gu ndaw femme bi jëm a xam quelques informations ci moom yu wóor yu ma mën a téye yoo xam ne femme bi du ma rëcc ma jéem a dem nag def ay recherche ngir gis Kumba Jinne waxtaan ak moom est-ce que wax ndaw si ne ko li nga wax dëgg la sa diina ak sama diina daanaka benn la am nañu wuute dëgg la waaye daanaka ñoo bokkul lu bañ li ñu wuute daal bariwul donte na am nañu wuute nag kon li nga wax dëgg la mais man sama tradition maanaam fay bi ma bokk dafa am lu muy fonctionné loolu moo tax ma bëgg nga may ma tuuti temps ma dellu ginnaaw bi ma yor sa contact bul ànd ak kenn bul siq ak kenn lenn dinaa la fi bàyyil benn chèque ci sama compte bancaire chèque boo xam ne ko mën a retirer muy xaalis bu takku bi waxee loolu femme bi femme bi daal di rey ne ko loolu moom su amee amul benn problème li nga bëgg rek lay def dinaa toog téye sama bopp ndax loolu mooy jàmm ci man loolu mooy sama noflaay noonu est-ce que daal di koy réserver bërëb ci otel boobu ngir mu reste fa nekk fa di fa dund du am benn jafe-jafe ñuy déggante téléphone waxtu wu nekk waaye bu mu jaxasoo kenn bu mu seq kenn lenn est-ce que tàmbali na fiire ndaw si mel ni comme si jabaram la ndax bëgg gu mu bëgg Linda moomu mu njëkkoon a gis te muy jëmmi ndaw si. noonu la Eska tàggatoo ak ndaw si dal di ñibbi si Sénégal bi mu ñëwee moo xalaat nag naka lay def ba gis Kumba Jinne Eska di mu njëkk a def mooy bi mu ñibbisee këram dont ne tuxu na fi mu dëkkoon waaye tefesu géej googu nga xam ne coroon garab googu la njëkk a gisante ak Kumba Excaf fa la doon dem jamono yoo xamee ne siiw na nit ñi tàmbali nañ ko xam bu baax fu mu taxaw ci mbedd ndakaaru yi nit ñi xam ko Excaf daal di taal otoom ba ci tefesu géej boobu dem ba si roon garab bi jamono boo xamee ne moo ngi ànd ak ñaari garde du corps waxtu woo xam ne waxtu timis la mooy leen ma ngeen taxawee nii rek man ma nekk si tefes gi si roon garab gi ngeen fexe ba kenn du du du ma gis kenn du fi romb daal maanaam ñu aar ko ba kenn du mu man man faa nekk moom kenn teg séisam toog toog ba mu guddi ba xam dara dina ko fa diggal est-ce que def na loolu ñaari yoon ba ñetti yoon am na jour boo xam ne sax dafa toog ba daanaka nelaw na fa nga xam ne gàddu koor ñoo ko mujj yee mu duggaat ci otom ñibbiwaat këram du tëdd ba gént kumba jinne du toog ba gis kumba jinne mënul def dara dara dara ba gis kumba jinne est-ce que jaaxle lool na ba yaayam mujj na sax seetlu ko ne ko waaw yow lan moo dama gis ñeenti fan yi génn génnoon demoo fenn boo génnee dem tuuti da ngay ñëwaat et gis naa nekkoo à l'aise lu xew maa jàmm la noonu itam jabar ji daal di wax yaay ji ne ko ma ni dem noonu laa jaaxle est ce que ñaari fan yu mujj yi sax daanaka bëggul a bokk mën néeg dafay tëju ci néegu boppam te di nelaw su ma waxee mu ne dafa sonn yaram bi dafay métti ma ne ko tee ngaa dem hôpital nga xool est ce que ne leen billaay du dara voyage yi may def ak tournée yi may def moo métti jabar ji ne ko waaye dangay ngay noppalu nga reposé wu te bàyyi xalaat yi xam nga liggéey bi ngay liggéey ak milieu bi nga nekk dafa compliqué pour nga stressé day yomb femme bi moom mu ngi góorgóorlu ci jëkkër ji bu baax di ko toppatoo di ko taxaw jëkkër ji itam day bëgg di sote jabar ji di wéet ndax bëgg na fu mu toog daal ba kumba ji ne fekk ko fa moo xam ndelaw la ak lu mën a doon ndax xel mi ak xol bi yëpp mooy mu am lu leer ci kumba ginne ba mën a dem nekk ak ndaw soosu nga xam ne mooy Linda ndax bëgg dafay lu garaaw moo tax sooy bëgg rek yàlla li nga bëgg mu nekk jàmm ci yow li nga bëgg itam yàlla nekk li nga xam ne lu baax lay doon waaye boo xasi ba bëgg rek day métti trop te moom est-ce que Linda boobu rek la bëggoon te lindaa boobu mooy Auré Silva bi nga xam ne moom la gisante lu yàggul léegi nag jamono bu nekk bu tojoo dina déggante ndaw si waxtaan ak moom téléphone ñu def communication ndaw si nekk ku intelligent ku sérieux noonu muy déglu waa ji rek lu waaj wax rek mu ànd ceeg moom comme léegi waa moo ko engagé moo koy fay noonu nag est-ce que mujj sax nekk nag di julli di jaamu yàlla léegi dafay sellal di def li nga xam ne mooy jaamu yàlla ndax ci contexte boobu la ko ku mujj ne feeñoo woon waaye moom jàpp na ne kon léegi na jéem a sellal jéem a jaamu yàlla waaye ndax ku mujj ne mu nga xam ne taxawaayu seytaane lay taxaw ndax am na benn. mbir moo xam ne noo koy compatible ak l'islam ak diina ak lu sell est ce que ci loolu nga mën a gisee ko ba jinne est ce que jéem na loolu essayé na def na ay wird yu mu xamoon def na ay astaxfirullah yu bari jàng alxuraan lépp lu mu jàpp ne lu baax la ci diinaam lu ko war a jegelee boroomam def na ko ba woor sax def na ko ñaari fan waaye dara dara dara dara bu tëddee gént sax du ko far def ni mu nelawee noonu lay yeewoo. ba tax na su yeewoo dafay am xol bu naqari su xamee ni géntul dara gisul dara ci kumba jinne ba sa xelam tàmbalee tey nag ndax léegi nekkatul affaire Linda kese waaye léegi jëmmi kumba jinne mi nga xam ne moo ko dimbale mu ginnaaw yàlla jàpp na ne lii mu am lépp moom moo tax waaye léegi nag bu gisatul kumba jinne mu dana doy waar di mbaa du xëy rek ñàkk lu am yëpp loolu itam gën a yokkaat ci xar mi karaw mu tàmbali nag di jaaxle nag di jaaxle fan yooyu boppam di tëju loolu un jour mu tëdd nelaw waaye li mu gént bokk la ku ma jëne de mama Khadija rakkam di doomu baayam di xaritam la gént moom mi nga xam ne moom la may njëkke ci jabaram ji bu mu géntee mama fekk dafa dafa gént di dox ci mbedd di dox ba mu yàgg ci xelam mu ngi naan alhamdulilah ci biir gént gi la de même gént gi ci lay wax naan alhamdulilah comme gént naa lu yéeme même gént gi ci la gént di wax naan alhamdulilah comme gént naa tey kon dinaa gis ku mujj ne tey bi mu waxee loolu mu dem ba ci genre banc yi nga xam ne fa la nit ñi di toog di xaar bus yi fu mel noonu ndax dafa daan faral di gis kumba jinne ci bërëb yu mel noonu mos na ko gént ci loolu noonu mu daal di ñëw ci banc bi daal di toog bi mu toogee xool banc bi mu jàkkaarloo gisul kumba jinne waaye rakkam maman Khadija la gis bi mu gisee maman Khadija daal di tiit daal di ne wow man kumba jinne laay wër far gis sama rakk. noonu mu daal di tàllal maman loxo nuyu ko daal di daal di daal di ree siñ maman ko daal di ne la wañ ko faale noonu Escane ne ko maman maa ngi lay nuyu de xanaa déggoo ma maman faalewu ko noonu mu jékki-jékki gis maman di jóg di dox ba ñëw ci moom bi mu ñëwee ba agsi ci moom daal di koy jox loxo daldi di door a ree mu ne ko ah man kay maa lay nuyu mel ni gisoo ma maman ne ko gis naa la sax dafa fekk sama xel mi am leneen lu ci nekkoon mais yow li ngay wër nii pour bu koo gis yaakaaruma nga gaa koo gis de ndax même man mii loolaay wër waaye nag li ma bëgg lenn képp la mooy est-ce que doo dem xooli maama ni ba est-ce que doo dem xooli maama ni ba xam baat boobu ko ma mamaa wax baat boobu la tiit rek daal di yeewu bi mu yeewoo ci nelaw rek daal di wax waaw man lan laa gént ni man kumba jënd laa war a gént wala sama rak mamaa Xadija mamaa laa gént mu ne ma man li may xaar moom lay xaar naa dem ci maama ni loolu nag tëj bopp bi mu daal di jug dugg ci toilette bi di sangu ubbi sens bi muy xel li noonu mu dugg ci biir peñawaar bi fi mu toog toog na fa presque lu jege waxtu di xalaat ba jabar ji mujj fëgg ne ko waaw yow est-ce que lu xew mbaa jàmm la yaa ngi si toilette bi yàgg nga fi de maa ngi lay defaral nii sax pour nga pour nga pour nga lekk pour loo xam ne soo génnee moom nga moom ngay lekk sa petit déjeuner maanaam sa ndékki noonu est ne ko teg ko noonu ma ñëw. fatiguement moom ma jàpp dama sonn sonn moo tax ma yàgg si toilette bi mu ne ko ah yow léegi da léegi danga nga da nga kii de da nga yàmbar di koy tooñ noonu noonu jabar ji génn dem est-ce que génn waaye moo ngi xalaat naka la war a géntee maman ak maman lan mu ci yoram bizarre na ci moom moom yàgg mu ne ah est-ce que nag nekkul ni gént mooy def loolu gént des fois day def lu mel noonu de des fois nga gént gis dara loo xam ne yoram nekkul ci gént gi xëy na sa xel daf cee nekk. te maman day sama xarit xëy na li maman nekk sama xarit moo tax ma génn ko dal di jàpp loolu commencé nag di utiliser xelam di ma a la xelam mu maanaam di jéem a gëm li nga xam ne moom la bëgg a gëm parce que maman nag yoonam waru cee nekk waaw loolu la xelam jàpp loolu la xelam bëgg a waaye ñàkk xam li mu waral bëri na <laughs> maman ak cee yoonam nekk yoonam moo ci nekk dëgg nag noonu est-ce que bi mu ñëwee toog di ndekki fekk jabar ji toog na ci taabal ji di ko xaar. ñoo ñu nekk di xeewlu noonu ñu tàmbali waxtaan jabar ji naan ko naka yaram bi mbaa féex na ndax garab yi mu la wutaloon yaa ngi koy naan noonu muy waxtaan ak jabaram ñuy maslaa noonu esca ni ko man de dama gént sax démb gént ko ma jaaxal mu ne ko ah lan la mbaa jàmm la mu ne ko man daal damay gént sama benn xarit boo xam ne ñoo bokkoon école bu yàgg ñëwoon na sax si xew moom daal laa gént ma ma nekk fi may woyee jékki-jékki rek gis ko sama wet te moom wàllu woy maanaam du woy du def dara moom loolu du affaire affaire am affaire woy sax ci boppam pour pourquoi ma gis ko noonu xanaa gént day faral di def lu mel noonu noonu est-ce que bëgg na ko mu waxtaanal mais context bi la changé daal di lëre jabar ji ci gént ki wax ko beneen façon gént te fekk demeewul noonu mais dafa bëgg a mu waxtaanal ko mu sottante xalaat parce que nit day nit soxla loolu bu jaaxlee pour jabaram wax ko version mu xam version jabaram kon jabar ji moom xel mi innocent la ci affaire xamu ci dara kon li mu wax rek amaana loolu mën na ko jàpp comme noonu jabar ji daal dina ko waaw loolu dafay faral di nekk des nga gént sax. da ngay dégg sax ñi am rab ñuy wax naan da ngay gént ngay sëy sa sœur wala sa frère xam nga ñooñu mënoo sëy ak ñoom mais nee nañ rab mooy def lu mel noonu léeg-léeg gis koo xam ne yoonam du ci nekk mais dala koy wan rab mën na soppala ko jëm ku ko neex bi jabar ji waxee loolu nag mu ne ah, xam ne nag li jabar ji wax muy dëgg kon amaana nag ku ma jine dafa dem soppaliku jëm bi maman Khadija mais maman Khadija yoonam newu ci loolu nag daal di dal xelam bu baax mais nag moom ak jabaram yëpp <laughs> juum nañ de yëf yi demeewul noonu ci noonu nag la ki nga xam ne mooy Escane nag daal di xalaat baat bi ko maam wax ci gént gi mooy demal nga seeti maama nii noonu nag la waxtaan ak jabaram ne ko man temps yi sama xel dafa nekk ci dem xool ñi nga xam ne yàlla dégg xam ci wàllu ñaan su ko defee ñoom dinañ moo mën a dimbale ci wàllu cat ak yooyu ndax yaram bu diis bi ak sonn bi xam naa ne cat la rek jabar ji ànd ak moom ci loolu 100 pour cent nag ndax ku ne xam ne célébrité yi ak ñi nga xam ne ñu siiw lañ ak footballeur yeeg ñoom ñëpp ñu ci bari ci ñoom ëpp ci ñoom. suñ réew yi Afrique yi dañoo gëm wàllu ñaan ñu ci bari ci ñoom am nañu ay mbokk yu leen di jàppal tànk ci yu mel noonu. ba tax na nag déngi déngiwul fasaasa la daal di waxtaan ak jabar ji jabar ji ne ko sama yaay sax am na benn sëriñ boo xam ne ku jàmbaare la ku xam ne daal xam naa ne ku mën la parce que sama yaay mus na ma ci yóbbu bi may bi may waaj a takk bi ngay dox pour takk ma te ma bëggoon sëy bi am lool nag ma amoon xam nga rek man moom dama laa yàgg bëgg daal di wax loolu waa ji est daal di ree est-ce que moom dafa jàppee jabar ji rek maanaam koo xam ne daal da ko ku mën ku mënul ñàkk ci kër gi rek mu andi ko fi waaye du loo xam ne lu mu bëgg la lu mu siral boppam li muy dund ak jabar yëpp ay jeu la rek parce que dëggantaan ji ne moo koy nekk di ko jouer di ko manipuler cey su borom noonu la Eska daal di ne ko sëriñ boobu de kon sa yaay war na mu fa yóbbu automatiquement jabar ji woo yaay ji bi mu ne ko Eska moom moo soxla yaay ji dafa gaawantu rek ne ko jox ma ko. nga xam ne esclave moom ku mu soxla ci famille bi rek fu loo jàppoon danga koy bàyyi ndax cër bi ko sunu borom jox bi mu ne ko man de sëriñ laa soxla woon wax a wax ba pare mu ne ko laay loolu kay amul benn problème man sax sama xel a ngi ci woon loolu ndax xam nga rek yéen da ngeen siiwee noonu nit ñi dañ leen di topp di wax ci yéen internet beeg noonu maire bi automatiquement mu daal di ñëw si kër gi nga xam ne dafa daal di jël oto rek ñëw si kër gi ba mu ñëwee esclave waxtaan yaayam yaay ji moom xam nga ndeysaan garaawalul dara fasaasa mu daal di d'accord ne kon baax na mën nga ngeen ànd noonu est-ce que déedéet ànd kay mën na ñàkk ndax xam nga mbirum sëriñ moom mbirum privé la ci sama goro la na bàyyi rek man mu teg jox ma adresse am jox ma numéro sëriñ bi noonu la ko maire bi defee woon SK jot sëriñ bi waxtaan ak moom sëriñ bi tam jombul xëy na turu SK daan na ko faral di dégg donte ne miinu ko waaye comme artiste la woykat ñaare ak ñoo xam ne ñu siiw lañ seen tur pour nga dégg ko day yomb ndax mën nga ko dégg sax ci say doom wala sa jabar wala sa waa wala ci télé bi wala yu mel noonu noonu la Ska ñëwee ci kër sëriñ bi bi nga xamee ne tegtal nañ ko sëriñ bi tegtal na ko kër gi jox ko adresse bi ba mu ñëw euh, sëñ bi ne ko mën ngaa dugg si ba ñëwee euh, bërëb sàngam nga ubbi nga fëgg man foofu laa nekk soo ñëwee rek na am ko ne ci bunt bi dana la recevoir. waaye bi Ska accès ci kër gi ni ko sëriñ bi waxee ba ñëw ci bunt bi noonu di xaar bëkk néeg bi wax sëriñ bi ne ko ki nga ma doon wax agsi na jamono boobu mu taxaw ci bunt bi rek fekk sëriñ bi wax ko ne na xaar. ki fi nekk génn mu ñëw waaye ki nekk ci néeg bi ki nekkoon ci sëriñ bi moom itam doon doon seet sëñ bi mel ni sëñ bi daf ko doon ñaanal mel ni ay itam la indi woon moom itam ba muy génn ndekete Mama Khadija la Mama Khadija dafa génn ci bunt bi di dem rek dajeek Escart taxaw ci bunt bi ngir war a dugg seen bët yi daal di ñeent Mama moom bi mu gisee Escart xaw na tiit tuuti waaye garaawul ko parce que jàpp ne rek xëy na comme sëriñ la mën naa am dafay ñëw ngir ñaanlu si waaye est-ce moom moo tiit bu mu gisee maman xalisaa ci bunt bi te maman moomu la géntoon mu wax ko ne ko na dem ci maama nii lan la maman war a def fii ak tombe mbir yi naka la tombee nii naka la mbir yi demee nii est nag daldi tiit nag fa sa rek àddunam yëpp tukki nag bu mu gisee maman ku bëgg a xam nag lan la maman doon def ci sëriñ bi. ak lan moo xew après ak lan la sëriñ bi waxante ak SK jox nañ la dig dajee épisode 23 bi fi la ñu yemal épisode 22 bi ñu jox leen dig dajee épisode 23 bi ci lu yàggatul dara incha allah jël ngeen jëf. leen gaaw abonné ci seen plateforme seen production ndax nag dara du leen rëcc ci seen histoire ak film ak programme yu am solo ñu leen tàmm andil jamono bu nekk. seen production Islam ca kanam.